أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذهابته ومن تبعهم تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين غنا بني سنت يالا جولي سي نون تومبو تيد بي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نيوغي ندوك لا نيب بنن يون دي لين وات سين وات واي دي لين جوخ بات نيو بي muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tey nag ñu ñëwaat si addis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di si leeral ay mbir yu nga xamante ni jibril moo ko ñëw wax ko ko moom yonent bi sallallahu alayhi daal di koy bëggalee bokkoon na si lim ko wax mooy képp ku nga xamante ni dangaa dee te tombeeg bi ngay dee bokkaale woo yàlla dara nee na jàppal ne sa dëkkuwaay mooy aljana waaye nag képp koo xam ne da ngaa dee te fekk na yow bi ngay dee yaa ngi bokkaaleeg yàlla nee na jàppal ne sa dëkkuwaay mooy safara mu ne xaddasana Muusa bun Ismaahil xaddasana Mahdiyu bun Maymuun xaddasana Waasil Ahdab xan Maaruuf ibnu xan Abi Sarri radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi aataani aati min rabbi fa axbarani أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن سنا وإن شارق قال وإن شنى وإن شارق نينا جلينا سي موسى بن إسماعيل ني جلي سي مهدي بن ميمون جلي سي واسل جلي سي معروف بن سبيد جلي سي أبي صر رضي الله عنه منه yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne jibril ñëwal na ma tukkee ci yàlla suñu borom bi subhaanahu wa taala di may xamal walla mu daal di may bégal ne képp ku nga xamante ni da dee ci sama xeet yi te bi ngay dee bokkaalew ak yàlla dara dana jàppale na sa dëkkuwaay mooy aljana mu ne mu wenn waa ji daf ko laaj ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag wa in wa in kooku nga xam ne ni dafa dee te bokkaale wut yàlla dara bu nekkee dafa njaaloo wala mu sàcc yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di wax ne wa in sana wa in donteel dafa njaaloo donteel dafa sàcc te dee te bi muy dee bokkaale wutal yàlla dara nee na jàppal dëkkuwaayam mooy aljina ñi ngi ñeen yàlla yal yàlla def ñi niti aljina yàlla bu ñu bokkaalee yàlla dara yàlla ñu jël yàlla def ko palaasam moom rek jaamu ko mu yoo xam ne moom rek yeew jaamu bi jaay nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye yan yàlla musal ñi si bokkaale yàlla yan yàlla musal ñi si sàcc yan yàlla musal ñi si njaaloo bi jaayi nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu